الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمّة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ixwatal iman mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala xam ngeen ne cosaan ci doomu aadama mooy liñ ko sant muy lu wér te muy cosaan ci moom mooy ittibaaul xaq mooy na topp dëgg ak dëgg gëm googu fu mu mën a ne fu mu mën a jóge ku ko mën a wax li am importance mooy dëgg googu yow na nga ko topp waaye dafa am ay mbir yoo xam ne ñoo ngi fii ak ay sabab yoo xam ne dafay fexe ba doomu aadama boobu du topp dëgg mukk su ko gisee du ko topp su ko déggee du ko topp même dëgg googu bu leeree ci moom du ko topp lu tax ndax dafa am ay barrière ay barrage ay pakk awaiq ittibaul xaq dafa am ay mbir yoo xam ne ñoo nekk ci kanamu waajooju ba gis na dëgg gi waaye du ko topp dégg na ko du ko topp xam na ko du ko topp jàng na ko du ko topp lu tax pakk-pakk yooyu ñoo tax mbokk yi yooyu bokk na ci ma yakunu nachian an ilxata bihaysu adda ilayhi gumudu lxaq aw gumudu lxaqiqa dafa am ay mbir yoo xam ne dafa taxaw ci kanamu waa ji ba munta topp dëgg munul jël dëgg munul dégg dëgg nangu ko mooy lan mooy njuumte alxata njuumte su doomu aadama juumee rusa dellu ginnaaw wala mu rusa wax ne juum naa ci musiba lay nekk li leen di wan ne danger bi nekk ci njuumte ku ko topp mooy benn waay dafa jàng benn téere bu mu jàngee téere bi mu gis ci biir ñu bind ci habbatu sawda loolu lañ bëggoon bind ñu bind hayatu sawda bu sa bët di metti soo jëlee hayatu sawda mooy jaan bu ñuul nga baxal ko ba mu bax ba mu commencé saxaar nga suuroo ko sa bët day wér waa ji gàddu jaasi dugg ci àll bi di wër jaan bu ñuul ba mu gis ko mu rey ko def ko ci saak ñëw këram sant soxnaam na ko baxalal ndox ba mu bax mu dugal ci jaan ji ba mbir mi bax mu wàcce ko teg ko jël mbàjj daa di muuru ñu ubbi cin bi saxaar si daa di dugg ci bëti waa ji bët yi tuuru amatul ay bët ñaari bët yëpp ñoo tuuru léegi nag lan mooy problème moom dafa bëggoon faju mu ngi doon wër lu ko faj gis ngeen bëgg na faju jot na di wëri lu ko faj waaye xool na lu mu ci jële mooy lim doon bañ lu ko gën a garaaw la am muy wër di faju di faju di faju di dem ba mu egg ci benn borom xam-xam mu ne ko yow lan moo def ni sa bët yi lu ko dama jàngoon benn téere ñu ne xayatu sawda jaan bu ñuul dafay faj bët mu ne ko allahu akbar ban téere la mu ne ko téere sàngam mu ne ko est ce que xam nga ne du xayatu sawda mu ne ko ah kay loolu la xayatu sawda la mu ne dama nga indi téere bi waa ji dellu këram indi téere bi sëriñ bi daal di xool bibliothèque am génn téere bi ñu xool muy même téere ñu ubbi page bi ndeke machine bi bi muy bind dafa waroon bind habbatu sawda mu bind hayatu sawda waroon bind grain bu ñuul bi muy habbatu sawda mu def ci ñaari tomb mu nekk hayya lu tax waajoo ji ñàkk bët mooy njuumte njuumte dafa doy waar tey da ngay gis ci dëkk bi kilifa gu juum ñu koy topp duñu xam ne dafa juum dañ koy topp ci njuumte li am na benn borom xam-xam boo xam ne génn na àdduna su daan julli comme màgget la dafa dem ba màgget buy julli bu taxawee day gestu ndeyjoor gestu càmmoñ nii lay def ci julli gi nii day dem ndeyjoor di dem càmmoñ nga gis waa jàkka ji comme kilifa diine la waa jàkka ji commencé di def loolu ku ne allahu akbar rek commencé naan nii limaza li anna cheikh yafalu dalik ndax cheikh bi daf koy def nit bu juumee kenn waru koo topp ci njuumte gi ndax njuumte bu ñu leeralul njuumte la day tax nit ñi duñu topp dëgg dañuy gis dëgg au lieu ñu topp dëgg bi soo waxee ñu ne diw moo ko doon def nii la ko doon defee ñun dañ koy def li ëpp ci doomu aadama yi tey li tax mënuñoo dégg dëgg mënuñu koo topp mooy lan ay njuumte lañ topp njuumte loo xam ne muur na dëgg gi dem na ba muur ko kenn xàmmeetul ne lii mooy dëgg li ndax njuumte gi la ñaareel bi mooy aw qasru nazar wala gàttañ lu gis-gis am na beneen feebar bu tax nit ñi duñu topp dëgg mooy gàtt gis-gis gaa yi duñu xool duñu ubbi seen xel duñu ubbi seen xol ku ko wax diw ku ko def diw fan la dëkku sàngam terminé dañ koy def loolu mooy gàttu gis-gis jullit dafa war a xóot gis-gis yaatal gis-gisam leeral ko xoolal fan yi da ngeen di dégg ñu ne benn daara boo xam ne dafa tàkk ay taalibe dee est-ce que daara la point kër la comme kër yi ñu ne dañ faa fekk drogue fu ay baraak tàkk ba jeex ay nit lakk fa ba xooñ ñu fekk fa ay cornet yu lakkul ay cornet xanaa cornet yooyu acier la même buñ ko fa fekkee war noonu yaatal xóotal kan moo ko fi indi mais lépp lu fa am rek jël nañ ko këpp ko daara parce que daara daf leen gêné woon parce que daara neexu leen woon depuis colonialiste yi te daara bu yeggee situation yi tey lan moo ko waral mooy gouvernement bi ñàkk a bàyyoo daara dafa bàyyoo ñeneen bàyyi daara ñaari sénégalais ñoo fi am ki bëgg français ki bëgg alquran ñu tabaxal ki jàng français ay école utal ko ay bibliothèque utal ko utal ko utal ko ay jàngalekat utal ko lépp ki jàng alquran kenn xamu ko moo tax mu egg fii tey gàtt gis-gis qasru nazr awil jahli bi tariqil basti salim ñetteel bi tax doomu aadama du topp dëgg mooy ñàkk a topp bu gëstu bu dëgg benn waaye day jóg ne dëgg laa soxla dëgg moo ma ñor dëgg moo ma ñor dëgg laa bëgg waaye ndeke gëstu bi mu topp pour am dëgg jaarul ci gëstu bu baax misaal waa ji dama jóg di gëstu julli fay faat julli googu ñu daan fay faat ñu koy def vendredi bu mujj ci weeru koor nga xam ne vendredi mujj dañuy luwe ay baas teg ci bayaal yi di woote ci rajo yi ñëw leen julli benn waay jóg ne dama koy gëstu est ce que wér na wala wérul fan la war a dem ci alquran fu mu war a dem ci sunna yonent bi du fa dem waaye mu dem ci keneen kooku du gis dëgg parce que julli googu yàlla waxu ko yonent waxu ko ak ku ko mën a wax nag ak foo ko mën a jële julli googu wérul ku ko def tamit dangay sonal sa bopp rek ndax ibtadauha ma katabnaha alayhim yéen a ko sos yàlla farataalu ko ci yéen kon nit ñett yi day tax du gis dëgg du topp dëgg njuumte gàtt gis-gis ak topp gëstu bu wérul nga jóg di gëstu dëgg ndeke yoon wi nga jaar baaxul ndeke téere yi ngay jàng baaxul ndeke wérul lu muy teg mooy da ngay dee doo gis dëgg ixwat al iman fa hada al insan kama yazhar jaa baaxisan an al xaqiqa muxlisan an al wusuli ilayha walakin هذه الأسباب حالت بينه وبين الوصول للحق واجي جوكنا نينا بريت mel ne waa ji doon wëri garab gàddu jaasi bi wëri garab gu ko faj xuus àll bi yëpp dem ba ca àll ba fekk jaan xeex ak jaan ji rey ko gàddu ko indi ko xoola kooku li mu dépassé yëpp ci ay coono waaye lan moo tax li mu doon ut amu ko mooy dafa juum njuumte waa ji jóg na bëgg dégg dëgg bëgg xam dëgg bëgg a gis dëgg sellal ci xolam ne dama bëgg topp dëgg gi yàlla wax ne alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kun lilxaqi abdan wa abdul xaqi hurran nit dafa war a nekk jaamu dëgg ndax képp koo xam ne yow jaamu dëgg nga yow gor nga doo jaamu waa ji sellal na bëgg a egg ci dëgg gi walakin dafa am waaye dafa am ay mbir dafa am ay barrage dafa am ay pak dafa am ay barrière yu ko baare ba nit ñi mënuñoo topp dëgg allahu akbar xoolal tey am na ñoo xam ne lan lañ leen baaree mag ñi mag ñi ñu baarewu mag ñi nga bëgg a tëkkaleeg ñii ñu freiné wu dootoo gis dëgg ah mag ñi de nii lañ doon jullee waa ji freiné wu dootul gis dëgg mag ñi de lii lañ doon def aada ji de lii la ñun de lii lañ fi fekk gaa yi daal di taxaw wala ñu ne waa bu ñu ko fi fekkee ndax yonent bi moom lu mu doon def lan la yonent bi doon def lan la yàlla wax lan moo nekk ci alquran ole waa ji laaj loolu déedéet dañ naan ko lii la waa ji doon def rek mu ne ah baax na baax na baax na déedéet lan la yàlla wax alquran lan moo ci nekk lan moo nekk ci sunna lan la yonent bi jàngale loolu lu tax yow laajoo ko ixwatal iman ñaareel ci barrage pakk yuy tere nit topp dëgg maa yakunu naasian an taqlidi l amali l xayri mooy toppandoo nekk al toppe di toppaate te ki ngay topp toppul quran toppul sunna tey bokk na ci li ñu alak waxuma sax ci sunu wàllu diine waaye ci sunu dund sax tubaab yi la ñuy topp noonu la ñuy soloo léegi noonu la ñuy dundee xool leen ci mbeddu Sénégal xool leen xale yu góor yi xale yu jigéen yi dem leen ci lycée yeeg seen yi dem leen ci école primaire yi génn leen dugg taxaw ci buntu mbedd yi ngeen xool njaboot gi nan la mel kan la ñuy toppandoo te yonente alayhi salaatu wasalaam waxoon na laa takun imma bul nekk al toppe bul nekk al toppe yow jullit soo nekkee ci dëkk ñuy def lu baax defal lu baax waaye bu ñu duggee ci lu bon taxawal tey da ngay gis toppandoo gi toppandoo gu kenn xamul fu ñu ko jëlee kon di toppandoo day tax nga gis dëgg te doo jël dëgg gi ndax booy toppandoo ku gisul dëgg da ngay sànku ni mu sànkoo beneen bi mooy ataassub far farloo man fii laa bokk ci kër gii laa bokk kër googu lu ñu wax noonu la kër googu dañ alxuraan lañ est-ce que kër googu yonent moo fa wàcc ba tax lu ñu wax noonu la ataassub farfarloo wala ci xeet bii laa bokk wala ci gox bii laa bokk wala ci famille bii laa bokk wala sant sangam laa sant ataassub di farfarloo dootoo xool dëgg yàlla bi parce que yow léegi far nga wone nga sa péete même sa mbokk yooyu bu ñu juumee dootoo leen wax juum nañ parce que fa nga far farfarloo day tax day tax nit du topp dëgg beneen gàllankoor buy tax nit du topp dëgg mooy siqatul am yaa am confiance ngumba confiance jàpp benn waay rek am ci moom confiance ba tëkkale ko alquranul karim wala nga def ko yàlla suñ waxee nga ni diw du juum diw du am bàkkaar diw lu ko neex def loolu fan lañ ko teg ndeysaan xoolal Aboubacar keroog ba mu faloo lan la wax xutbaam bu rëy topp leen ma atiuni ma ataatu llaha wa rasula topp leen ma fekk maa ngi topp yàlla waaye wa in asaytu llaha fala taatali aleykum bu ma moyee yàlla bu ma kenn toppati nit am ci nit confiance kenn dootu ko wax dëgg yàlla bi nga defe ne waa ji lu mu def noonu la beneen feebar buy tax nit du topp dëgg mooy taatil li adawaatil bahs wal maarifa nit ñi dañoo waroon jàng loolu mooy aslu pour xam diine iqra bismi rabbik fa alam annahu la ilaha illa léegi man far naa fii topp naa kii jàngatuma jànguma lu may jàng lu ma koy doyee diwa ngi nii sama kanam moom laa topp mooy liñ doon gëstoo pour xam diine wér léegi kenn dafatu ko kenn jàngatu xoola dëkk baa ngi ni kenn jàngul koo wax rek parce que aljanna lijjanti nañ ko ba pare koo wax ñun dugg nañ àjjana ba pare waaw yenn saa yi sax nga dégg ñu ne li nekk fii bu ko yàlla xeebee ñàkk la ilaha illallah li nekk fii bu ko yàlla xeebee ñàkk da ngay dégg loolu ci réew mi lan moo fi nekk ba yàlla di ko di ko xeeb lan moo fi nekk lan lan moo nekk Sénégal lu ko waral mooy ñàkk a gëstu dëgg waa ji jóg di gëstu dëgg ñu tëj buntu yi daa di tëj jàng amatul parce que waa ji lu mu def lool la ixwaani aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون منها ما يكون ناشئا عن اتباع الهوى وشهواتها amna benen tombu ci tombu gis deug wala deg deug bagn ko top lu ko waral topp say bànneex topp bànneex afaraayta man ittaxasa ilaahahu hawa lan moo tax waa ji mënta topp dëgg parce que bànneexam lii ngeen koy wax neexu ko lee ngeen koy bàyyi loo looloo ko neex lii ngeen ko bëgg a def loo loolu neexu ko lii ngeen ko bëgg a bàyyi loo lool moo sax ci xolam kon du bàyyi ittibaa'ul hawa topp bànneex te Sénégal nag dara nekk ku fi lu dul topp bànneex ku nekk rek li la neex ñee ngi ci sabar yi ñee ngi ci ndënd yi ñee ngi ci xiin yi ñee ngi ci jiin yi ñee ngi ci ku nekk rek foo lu la neex rek li la animé sa bakkan bëggu ko rek nga daal di dem yow seetatoo diine yàlla yow lu la neex nga xool nga gis ci kenn bëgg-bëggam fa tuzayinu lahu ahwaa'uhu wa shahawaatuhu ومطالبه سورة من صور اتباع الباطل da gis kenn bëgg-bëggam bànneexam wala li mu jublu lii rek la xool dana fexe ba lii mu taaral ko rafetal ko pour topp ko Sénégal xoola caaxaan yi ni mu bëree foo bi ni mu bëree waaye dañuy jël diine ji ne dañ koy laxase dañ koy àmbalee kaw fo bi pour nit ñi mën a ñëw waa ji bëgg a fecc xamul nu muy feccee day dem préparer ay sabaram ay ndëndëm indi góor ña jigéen ñi pour nga ni leen lii araam na mu ne laa ilaha illa allah dëgg di di tulli ay sabar pour bugg fecc léegi soo waxee mu ne laa ilaha illa allah laa wax yi nga ni ma araam na man ma wax laa ilaha illa allah gis nga fekk laa ilaha illa bu ànd ak ay góor ay jigéen buy fecc fan lañ ko jàngee ci ban diine la nekk amul fenn waaye waa ji bànneex bi la bëgg la bëgg a aar la bëgg a defar ba kenn du mun a wax ci bànneex bi jaxase ay góor ak jigéen te ñu ne lii jaamu yàlla la nga bëgg a wax baaxul su ko defee bànneex yooyu la gaa yi di taaral indil ko beneen forme fekk neen la wala talbisul xaqa bil baatil yàlla moo ko wax bu leen jaxase dëgg ak caaxaan yéen a gën a xam wa antum taalamuun yéen a gën a xam ne lii ngeen nekk ay caaxaan la waaye ngeen jël ko di ko jaxase dëgg yàlla moo ko wax yàlla moo nu xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla mooy pénétrer dënn yi dugg ci xol yi dem ba ci biir ba xam waa ji lan mooy jubluwaayam du leen ludul bëgg a fecc kese wala yaxfa ann aksaru nnaasi min as-sinfayn lépp ci nit ñi tey nag ci ñaari mbooloo yu njëkk yi lañ bokk mbooloo bi nga xam ne dañoo juum ak mbooloo mi nga xam ne seeni bànneexi bakkan lañ topp seen bànneexi bakkan lu mu bëgg rek loolu la ñenn ñi moom dañoo topp topp ngumba ñoom amatul lu ñuy xool xoola waa ji topp na topp ngumba wala mu am confiance ci ki mu topp ba ñeme na koo bàyyeeg jabaram ndeysaan ci biir salle de bain jabaram ji di ko tàngalal ndox wala ñeme naa xëy bàyyi jabaram ak waayam jooju ne ko bu sama waaju ñëwee nga toppatoo ko waa ji ñëw dugg ak ndaw si ci néegu biir bi allahu akbar léeg-léeg sax waa ji am confiance ba ne soxnaam bësal ma sama sëriñ bi bés ko fa sonn xoolal confiance bu garaaw boobu luñ ci gis sëriñ bi ëmbal na jabaru taalibe bi nangu na jabar bi def na sàngam def na sàngam loolu confiance boobu suñ ko joxoon yàlla suñu lépp baax bu nu wóolu woon yàlla ni nu wóoloo nit ñi tey jàmm rek am ixwatal iman ulaika allazina yabxasuuna an ilxaq bi ixlaas baazilina fi sabili alwusuli ilayhi kullu ma yastaticuun min alwasail walakinahum qad yuxtiuuna altariq axyaanan ay nit a ngi ni yoo xam ne dëgg rek moo leen intéressé moom rek lañ bëgg dañuy jóg gàddu seeni jumtukaay yépp new dëgg moo leen soxal dañoo bëgg a sellal waaye nag ndeysaan ba ñu nee bërët dañoo jadd ñu defa ne foofu la fekk réer mi yàgg nañ ci réer gi ba tey boo leen bëggoon wàññi daanaka di nga ne bakkan xëj na ci wa yumassilu al inxiraaf an il xaq an il mafahim al fikriya تأثيرا بالأهواء النفوس وسهواتها أقصى الانحراف خلقي وأعمقه léeg-léeg jàdd yoon boobu ñàkk topp dëgg googu fan lay juddoo mooy ci dégg-dégg yi ci dégg-dégg yi léeg-léeg nga gis ñu wax benn waay ñaan gii day moo gën alxuraan ñaan gii moo gën alxuraan yenn saa yi ñu ne waa ji jarul ngay jàng alquran ndax alquran ràkkal la xoolal jullit bi gëm ne jarul jàng alquran ku ko ku mën a defar jullit bi gëm ne waruma dégg alquran ñu koy tafsir ko ku ko mën a defar kenn mënu ko defar ixwatal iman waa gaa yooyu topp nañ seeni bànneex ba xóot ci biir ba tey mun nga ne lab nañ ci kenn du leen ci mën a génnee li anna saahibu hadha al inhiraaf la yuridu ru'yatu al haqq wala yas'a fi talabihi ñii nga xam ne yàgg nañ ci caaxaan yi sax nañ ci daanaka nuur nañ ci dara intéresse tu leen tey fii nu nekk lu dul rek li nu bëgg nañ ko bàyyi ñu continuer ak moom li ñu bëgg nañ ko bàyyi dootuñu déglu kenn ku ne yàlla nee na dootuñu déglu ku ne yonent bi nee na dëgg intéressé tu leen lan moo leen intéressé mooy seen bànneex ak seen bëgg-bëgg ak fa ñu bokk seen jikko yàqu na ci loolu dugg nañ ci loolu ba jeex ndax bëggatuñu lu ñu dox lu dul rek ci lu leen intéressé lakinahu yuxaawilu jahidan an yajida fi lmafahimi alfikriya falsafa muzayana bi ittibaari wal alwaani léeg-léeg kenn ci ñi ñi nga xam ne dañoo topp caaxaan danañu jóg di def effort suñu dajeeg yow nga wax leen lenn dana leen jaral dem di gëstu ji wala di indi ay argument yu ñu dëggale ñoom lii nu nekk yenn saa yi nga dajeeg benn waaye mu ne la yéen nee ngeen salaatu nangam wérul nga ne ko waaw mu ne pourtant astaghfirullah la te yàlla mu ne istaghfiru rabbakum pourtant laa ilaha illa allah la yonent bi nee na man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa daxal aljanna gis nga di jóg di wëri lu ñuy indee ay barrière pour caaxaan yi mën a samp loolu moo fi am tey nit ñi dëgg intéressé tu leen rek pour ñu jël ko dund dëgg bëgguñu ko yitteelu leen lu leen ñor rek mooy man de lii ma nekk nañ ma bàyyee ak moom yenn saa yi sax nga dégg ku ne lii ma nekk de bu dee dama ciy dem safara kon ma xam ne safara dina fees parce que dinaa fa dugg parce que xamu parce que boo xamoon safara doo ñaan yàlla mu dugg ci benn waaye dafa dégg jahannama rek mu tuub ñu ne ko lu tax mu ne tur bi laa ragal balaa may gis jëmm ji tur bi laa ragal ñun ñu koy dégg guddeeg bëccëg di ko jaar ixwatal iman yaqulu almawla fi muhkami tanzil wala talbisu alxaq bilbatil wa antum taalamun ويقول المولى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ويقول إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين borom bi subhanahu wa taala nee na ngalla waay bu leen jaxase dëgg ak fen bu leen jaxase dëgg ak caaxaan te yéen ñooñu di ko def wa antum taalamuun xam ngeen xam ngeen xam ngeen da ngeen a bëgg a jël dëgg caaxaan sànge ko dëgg wa antum taalamuun xam ngeen léeg-léeg nga dégg ñu ne waaw ñun xam nañ ci sax yàlla waxu ko yonent waaye nag waaye nag amul place ci islam amul ci place waaye nag amul place ci islam yàlla wax na ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras samina wa ataana lakin amu fa place yàlla nee na bu leen jaxasee dëgg ak caaxaan te yéen ñi di ko def wa antum yéen te alamuna xam ngeen yàlla wax na alxaqu min rabbik dëgg ci man la bàyyeekoo bàyyeekoo ci sen mu ne muhammad fala takunanna min almumtarin bul nekk ci déng ñi déng déng yàlla wax na inil hukmu illa lillah yàlla rek moo war a àtte moom yàlla moomu yaqussul xaq dëgg rek lay wax dëgg rek la wàcce amul leneen naka la nit di bàyyee dëggu yàlla jàpp beneen dëgg ñaari dëgg mënul am benn dëgg kese la yàlla nee na wa huwa xayrul fasilin yàlla rek moo mën a firi mbir yi allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaati allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد بنا سوءا فرده عليه ومن كادنا فكفه اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فرده عليه ومن كادهم فكفه اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والسيعيين ومن شايعهم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله